bokkente na di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm naka koor gi mbaa yéen a ngi koy gérer yàlla baax na ay ca gérer leen ko rek léegi mu jeex incha allah tey ma indi leen histoire benn xale bu jigéen boo xam ne histoire bu xaw a compliqué doy waar tamit mais nag yàlla baax na comme ni ma koy waxee rek saasu ne lii benn femme la femme bi nee na moom dafa amoon copain di génn copain bi mais copain bi Euh, làkk bi mu bokk ñoom duñu takk ku dul seen mbokk nee na nag ci noonu moo copain bi génn nañu dix ans bi ñu génnee dix ans ba léegi sëy amagul woon seen diggante nee na moom en 2005 mu war a bi mu waree voyager far voyage boobu daldi di échec mujjee wula dem nee na mu toogaat fi ba 2008 2008 nag ci la voyage bi sottee mu daal di dem voyager mais mi ngi voyager woon euh, ci benn pays Afrique maanaam génnul woon Afrique mais beneen réew la nekkoon nee na bi mu nekkee ci pays Afrique boobu mu nekk fa nekk fa nekk fa ba 2010 mu daldi di retourné fii di senegal ñibbisi pour seet si ay mbokkam nee na bi mu ñibbisee nag mu fekkaat copain bi copain bi nga xam ne ñoom ñaar génn nañu 10 ans mu doog a voyager nee na copain bi daal di toog ne ko dama bëgg ñu waxtaan nee na mu dem gisee copain bi ñoom ñaar ñu toog di waxtaan nee na copain bi ne ko est-ce que bëgg nga ma takk la nee na mu daal ne ko bien sûr bëgg naa ma nga takk ma ku génn ak yow 10 ans kooku xam nga ne bañul nga takk ko nee ci noonu waa ji ne ko mais man bëgg naa laa takk mais la problème en est damaa yorul xaalis ba léegi yoraguma xaalis su ma la takkee ndax nee na waa ji mi ngi doon liggéey mais liggéeyu waa ji demeewul noonu ndax waa ji da doon taaba taaba mais nee na waa ji nekkoon na ku respecté liggéey bi mais liggéey bi moo bëriwul woon xaalis nee na ci noonu nag mu daan ne waa ji vraiment mënuma laa xaaraat yow plus de dix ans ñuy génn nga ne naa la xaaraat jëmale kañ ndeysaan nee waa ji ne ko mais man bëgg naa laa takk mais dama yoragul lu ma la takkee nee na ma soxna faatu ci noonu fekk bi may jóge voyage dama indaale woon xaalis nee na ma yëkkati cinq cent mille francs daa di koy jox waa ji ne ko léegi bu dee problème mu xaalis la rekk léegi mun nga maa takk xaalis a ngi nii jox ko cinq cent mille ndeysaan bi mu ko joxee cinq cent mille nee na waa ji jël cinq cent mille yi yónnee ko seen kër comme première kado nee na papaam daa di jël cinq cent mille yi daa di koy jox yaayam yaayam daa di koy denc ngay ndeysaan mu ne ko cey doom bëgg nga sëy de te sincère nga nee na ci noonu ñu war a def takku jàkka bi ñu waree def takku jàkka nee na papaam daa di jël cent mille francs yi daal di koy dépensé ci takku jàkka bi nee xaalis bi dal di des quatre cent mille francs CFA bi mu desee quatre cent mille yaayam dal di denc quatre cent mille yi ndeysaan li ma ci mën a jàngatee mooy a famille bu doylu lañu te mën a denc xaalis ndeysaan nee bi yaayam dencee quatre cent mille yi nee moom mu dellu ca réew ma mu nekk ci Afrique ndax nag dafa doon liggéey liggéey boo am solo neena na jëkkër ji ñu continuer di waxta di wax téléphone di déggante ji jokkoo nee benn jour jëkkër ji woowaat ko téléphone ni ko man dama soxla xaalis nee na mu ne jëkkër ji yow lan ngay doyee xaalis nee na jëkkër ji ni ko comme tabaski mi ngi ñëw dama bëggoon a def opération tabaski jéema xool ndax xaalis bi dina ma jural dara su fekkee mun nga ma lebal xaalis nga lebal ma ma daal di def opération tabaski nee na soxna Faatu ma daan ne ko ah bu dee loolu nga bëgg a def amul problème léegi yow xaalis bi ma la joxoon pour nga indil ma ko premier cadeau mi ngi kër ga ndax cent mille francs rek lañ ci dépensé gum pour takk jàkka bi léegi bàyyil ma lebal la xaalis boobu nga def ci sa opération tabaski après soo paree nag nga delloo ma samay quatre cent mille ndeysaan sama <laughs> rappel jox ma samay quatre cent mille ne na ci noonu waa ji ne ko léegi nan laay def ba jot xaalis bi nee na mu boole ko ak benn sëram bu nekkoon foofu ca kër ga ni ko ne sër bi demal wax sama yaay mu jox la quatre cent mille yi dama koo soxla mais nee na soxna Faatu sama ñoom yaay xamuñu ne 400000 li sama jëkkër bi laa koy jox ñoom ba tey dañu jàpp ne rek man maa ngi fii ci pays Afrique bi man maa soxla 400000 li nee na sama sœur bi daal di jël 400000 li bi mu ko laajee sama yaay ba sama yaay jox ko ko nee na sama sœur bi dem ba taliba dajeeg sama jëkkër ji daal di yëkkati 400000 li daal di ko koy jox ma ne ko eskay nee na ci noonu tabaski daal di paase. bi tabaski bi paase nee na laajaatuma ko ko laajaatuma ko ba xam ne nag jaadootul nee na ma woo ko ni ko yow ana sama 400000 ndax danga ne ma woon opération tabaski ngay def tabaski paase na léegi fay ma sama xaalis nee na jëkkër ji ne ko xaalis bi daal vraiment dafa seey cëy yàlla nee na ma ne ko dafa seey mu ne waa ma ne ko d'accord amul problème nee ma daal di tourner la page nee na après ma ni ko léegi dama bëggoon ma ñibbisi senegal ñu jàpp benn weer boo xam ne dama ciy def sama xew benn yoon ndax nag takku jàkka kese laa defoon ndeysaan nee na bi mu waxee loolu waa ji nee na waa ji daal di koy proposé ni ko léegi au lieu ngay ñëw Sénégal ñuy def xew dama bëggoon nga bàyyi ma ma ñëw pays Afrique bi nga nekk ñu consommer fa suñu mariage def suñu lune de benn yoon après nag bu ñu ñibbisee Sénégal ñu doog a célébrer suñu mariage nee na mu ne waa ji d'accord amul benn problème ndeysaan nee na ma soxna Faatu ku dee ñu ber la waa ji dafa bari kersa du siggi xool nit ba pare nekk na nit koo xam ne waxam bariwul bari kersaam moom foo ko nattu rekk weesu na ko ndeysaan nee na bi ma proposé loolu ma daal di nangu nee na après ma daal koy daggal billet ndeysaan bi ma ko daggalee billet mu ñëw fekk si ma ci pays Afrique boobu nee na ma daal jël appartement pendant sept jours ma jël apartement boo xam ne journée cinq mille francs la ma ne ko lenn de jàngate naa ko ci Sénégal seer na ay location de appartement lëmm journée 5000 ay bu doon Sénégal ba ñu xàccal la 25000 jëm kaw en tout cas pays Afrique bi nga nekk moom foofu affaire yomb na appartement lëmm journée 5000 cher yomb na de ndeysaan Sénégal kay vie bi cher na torop te metti mais nag yàlla baax na ndeysaan nee na muy fay journée mille ci appartement bi mu jëloon pendant sept jours mook jëkkër ji nee pendant sept jours yi soo ko defee total trente cinq mille lay doon nee na sans nag lekk ak naan bi lépp moom jabar ji moo ko géré woon ndax waa ji wax na leen tey taaba taaba soxna si sax moo may boppam premier kado maanaam soxna si dafa jël xaalis jox jëkkëram pour mu indil ko ko premier cadeau lune bi moo ko financé lekk bi ak naan bi ma ne ko cey yàlla jigéeni Sénégal ñoo bëgg sëy mais nag yàlla baax na ndeysaan nee na ci noonu bi mu ñëwee pendant sept jours yi ñu ñu nekk euh, ci apartement bi ma jël nee na ñu jéem a consommer suñu mariage mais nee na soxna Faatu première jour bi waa ji bëgg maa jël nee na waa ji affaire bi bañ nee na ñu essayé waat deuxième jour waa ji ba tey affaire bi bañ ñu ne bi mu bañee nag ñu ne ma daal di woo sama benn sœur boo xam ne yàgg na ci sëy ma daal di koy expliquer situation yi ni ko man de sëñ bi dafee ñëw dafa bëggoon ñu consommer suñu mariage mais depuis bi mu ñëwee ba tey wax dëgg yàlla bu ñu bëggee consommer moom day am ay difficulté nee na sœur bi ne ko est-ce que du stress moo ko jàpp ba pare nee na sœur bi ne ko comme nee nga ma sa waa ji mosul xam jigéen mun na am li mu musul xam jigéen a pare ak stressu mariage beeg voyage beeg yooyu mun na am moo ko jàpp ba tax mu am ay difficulté pour consommer seen mariage ma ne ko ci ay waay loolu raar na di góoru Sénégal bu mësul xam jigéen jusqu'à mariage ay waay yàlla na jëm kanam waay cey yàlla nee na après waa ji daal di woo yaayam daal di koy expliquer situation bi nee na ma soxna faatu ndekete yoo ndekete yoo waa ji ndekete papaam moo ko takk xala lu tax papa ji takk ko xala nag mun nañ ko analyser xëy na papa ji day bañ su doom ji consommé mook jabar ji à la fin ñu reste ca pays Afrique boobu dootuñu gaaw a gisaat seen doom xëy na noon doo nga ko mën a expliquer ba sa papa ji ban intérêt la am ci takk doomam xala buy doog a takk jabar nee na nag bi ko papaam takkee xala après papaam woo leen téléphone mais nee na xam nga paa bi du leen leeral moom la ak du moom ndax bi paa bi déggee coolu rek dafa woo doom ji téléphone ni ko léegi da ngay ñibbisi ndax ñun ay làkkat lañu te suñu làkk bi xamuñu ngay jël sa soxna te xewaloo ko léegi dangay ñibbisi boo ñibbisee ñu xew-xew bi ba pare nga doog a jël sa soxna ma ne ko eskay nee na ma soxna faatu ma paasalaat sama jëkkër daggal ko billet mu dellu si waat Sénégal man ma reste fa ndax booba maa ngi ci sama liggéey nee na bi muy ñibbi ma paasal ko ba pare ma jëndal seen waa kër yépp taaw ba caat ay tisi lu nekk loo xalaat pour samay njëkk ak samay goro ba mu nekk presque valeuru trois cent mille francs CFA ma ne ko cey soxna si doom yow taal li nga de ndeysaan nee na quatre mois après ma ñibbi senegal bi ma ñibbisee senegal pour ñu xewal ma nee na ma woo sama jëkkër ni ko damay ñëw ñu xew-xew bi benn yoon mu daldi jeex nee na jëkkër ji ni ko yoruma ma ne ko comme d'habitude ñam naa ko neex na bàyyi naa ko amul fenn nee na mu ne jëkkër ji yoroo jëkkër ji ne ko yoruma mu ne amul problème nee na mu jóge ca pays Afrique ba mu nekk ñibbi ci Sénégal bi muy ñëw mu jëndaale bépp bagage boo xam ne da koy soxla daldi ñibbi ci Sénégal nee na mu ñëw daal xewal boppam pour ñu muur ko mu sëyi nee na soxna faatu xew bi li ma ci dépensé yépp solu bi cheveux bi sañse yi dàll bi ñoom seen ak jàppal bàyyil yi dem ci xew yépp bi ma ko calculer lépp 700000 francs CFA laa dépensé sans compter xar mi nga xam ne sama papa moo ma ko may pour ma ray ko ci xew bi ndax sama papa da doon wax ci ñun ñi ay doomam képp ku téye boppam ba yàlla may ko jëkkër moo lay may xar bu nganda ngand nga dimbalikoo ko ci sa xew nee na sama papa may ma xar moomu ak sama ay dépense ma fere ci xew bi 700000 francs nee na ci guddi gi ñu muur ma ma sëyi nee na biñ ma muuree ñoom nag xewuñu dañoo def rekk xew bu yem daal di euh, woo seen quelque mbokk ñu daal di ñëw après ñu xëy ñibbi nee bi ñu bi ñu ñibbee nee na le bi ma daal di tëdd nee ma tëdd ma ne ko ah woy bien sûr gisa sa jëkkër ji bi mu ñëwee ca pays Afrique ba mënul woon def dara nga ñëw seen kër tout est ok kon ça veut dire am na lu ci doon ñuul nee na bi ma tëddee comme ñoom seen xeet bi ñu bokk dañoo fonk ndaw nee na ñu daal may laabaanal nag ndeysaan nee na ma laabaan bu neex a neex a neex ma ne ko est-ce que nee na ci noonu soxna Faatu ma daal di fay toog nag fas yéene sëy sëy bi nee na sama wujju peccoor ga nekk nit ku baax ndeysaan bëggal ma boppam te nee na sama wujju peccoor ga ak fa may sëy ñoom ay mbokk lañu sama wujju peccoor ga bi dégg na làkk bi ñuy làkk man dégguma ko mais nee na sama wujju peccoor ga bi daal ku baax la ku ma jàppale la ku ma uuf la bi ma ñëwee donte moom dafa mbokkook famille bi may sëy man bokkuma ak ñoom dara ndeysaan ma ne ko noonu la yàlla baax na àddina amul solo nee na deux mois après ma dellu pays Afrique ba nee na nag avant may dellu soxna Faatu deux mois yi ma fa nekk safoon na tuuti de ndax nee na kër gi amul génn soo génnee rek dangaa dem seetaani ay anytime ay réception walla ay sabar nga ñëwaat duggaat ci kër gi nee na lu ko moy kër gi doo am sax temps wu génn ndax vingt 24 heures sur 24 yaa ngi ci liggéeyu kër gi lu tax service su njëkke yi ak service su goro yi moo bëri de telle sorte que yow doo am benn temps pour échapper moo tax kër gi moom doo fa mën a génn ndeysaan ma ne ko yàlla baax na. ñene bi ma delloo ca pays Afrique ba ndax nag comme maa ngi woon ca pays Afrique ba di liggéey muur nañ ma ma sëy damay dem eggale sama liggéey nee na 9 mois après ma ñibbisiwaat. Sénégal dem nekk sama kër jëkkër ndax muuroon nañu ma ba pare ma sëyi nee na nag soxna Faatu fii la ma gaay yi commencé di woon seen vrai visage nee na ñu may maltraité di ma sonal di ma beddi nee na di ma yàq lu mel ni xeme ndeysaan ma ne ko ci yàlla <laughs> metti na de nee na sama goro nag moom man xam naa ne bëgguma woon mais da doon maslaa ak man de maslaa bu méttee métti ndax xamalu tax muy maslaa ak man yor naa sama ay teraanga di ko teral di ko jox ay tisi di ko jox lu nekk ne na sama goro dema dem bay nëbb bañ gi ma bañ waaye man xam naa ne sama goro bëgguma mais mi ngi doon maslaa ak man lu mu mën ndax teraanga yi ma koy teral ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na sama njëkke yi parfois dañuy jékki-jékki rekk attaqué ma histoire di ma daggal ay saaga di ma yàq lu mel ni xeme waaye nee na ma soxna Faatu gisa su ma toogee sama njëkke yi di ma saaga sama goro danaan pattu noppi du wax de donte xam na ne doomam mi defuma leen lu war a tax ñu may saaga mais nee na day noppi ba doom yi génn ba mu xam ne maa moom kese ñoo des ci kër gi nee na sama goro doog maa fekk sama néeg naan ma muñal xale yi dañoo réew xamuñu seen bopp te lii ñuy def ñii fu ñu dem dinañ dellusiwaat amuñu benn yar waaye yow muñal te ñoom xamuñu ne sax waruñu laa tooñ ndax ñun ñun ñii ay kal lañu ma ni ko eskay ndeysaan senegal de foofu la mujje sa njaboot day def na ko sudul noonu nga ragal a wax ak moom dangay bàyyi ba mu dem nga di ko jëw ci yàlla mu ne ma soxna faatu bu ko defee ma noppi rekk xam li ma xam ndeysaan ma ne ko yàlla baax na ñu ne trois mois après bi ma fa toogee loolu ñu may saaga seen yaay di bàyyi ba ñu dem di ma dëfal nee na ma delluwaat fa ma nekkoon ca pays afrig ba nee na ba ma fa delloo ndekete bi may dem man ëmb naa te xawma ko nee na ma dem rekk ëmb bi feeñ nee na ma nekk fa nekk fa ba yàlla may ma fa doom mais nee na bi ma amee doom maa ngi am doom bu jigéen nee na bi ma amee doom bu jigéen xale boobu dafa mujjee dellu xale bi dellu ma wax ko sama jëkkër nee na comme man su ma demaan pays Afrique ba neuf mois laa fay am daal di ñibbi si nee na bi ma demee amaat neuf mois nee na sama jëkkër woo ma ni ma soxna si nag dama bëgg nga ñibbisi définitivement au senegal nga bàyyi jaabante bi sûrement waa ji dafa jàpp ne jaabante bi moo delloo xale bi nee na ma ne ko sëñ bi bàyyi ma ma toog fii rek liggéey en tout cas damay ñëw senegal def fa weer wala ñaari weer wala ñetti weer ñibbisiwaat bàyyi ma toog liggéey rek nee na waa ji topp ko topp ko ba à mu accepté abandonné liggéey bi foofu ca pays Afrique ba ñibbisi Sénégal nee bi muy ñibbisi mu jaay bagaasam yëpp yu mu fa amoon bépp matériel bum fa amoon à la fin da ko mujjee jaay nee na mu ñibbisi définitivement au Sénégal pour ñëw toog ci sëyam nee na soxna Faatu ma ñibbisi te encore nee na sama njëkk yi ne ma jafandul di ma xas di ma yàq musiba set fois-ci luñ may xasee nee nañu man bëgguma am doom ndax dama bëgg xaalis dama bëgg di commerce di jaay jënd ak jaay moo tax ak dem di liggéeyi moo tax nanguwuma am doom nee eh, ñu may yàqalu leen neex ba mu yàgg à fin ñu may gaafal <laughs> ñu may gaafal di ma gaafal ndeysaan nee na sama wujju peccorga bi nag ku baax la ndax moom lépp lu bon luñ ma mësa a làkk wax ko ci seen làkk buñ may jëw moom moo ma koy jottali waaye su ma ko jottalee danaan ma muñal àddina amul solo dëfal ma ba ma bàyyi mu sedd nee na doomam yi dañ ma bëgg aussi sama doom bi wujju ga bi nee na ma soxna faatu ni ma sama wujju ga bi di defalee suñ ma tooñee ñu dema dem ba naan ko siboorukat bi nga doon ak danga kaa ragal ndax nee na sama wujju ga bi liggéeyul woon dara man maa ngi doon liggéey ma ñëw mu bëggal ma boppam man tamit saa yu ma jógee voyage lépp lu ma am dama koy may may ay njabootam may ko xaalis nee na nag ñu dem a dem ba naan ko si boorukat nga danga koo ragal moo tax nga koy jage nii di ko neexal nee na suñ ma daan jëw di ma yàq ci seen làkk nee na sama wujju peccoor ga bi moo ma daan nettali lu ñaaw liñ ma doon yàq yépp ci seen làkk mu ne ma bien vere que sax avant mu ma koy wax dinaa xam ne ñii ci man lañu nekk ndax nag même boo déggul làkk am na wax yoo xam ne soo ko déggee di nga xam ne ñii ci yow lañu nekk nee na après sama wujju peccorga bi leeral ma ko ba pare ne ma muñal te sama wujju ga bi seen mbokk bu jege la ci ñoom ndeysaan ma ne ko cëy yàlla yàlla baax na nee na ma sonn nag ñu may gaafal di ma yàq lu ne nee na ma ne sama jëkkër damay delluwaat ndax vraiment man xaw ma lii coow guddi coow bëccëg vraiment man xaw ma lii bàyyi ma rekk ma delluwaat nag sonn naa ci coow li ndeysaan nee na jëkkër ji xaw a bañ nee mu ne ko bàyyi rekk ma dellu nee bi mu programmé pour dellu nee na mu daal dellu nee bi mu delloo pàppay jëkkër ji daldi gaañu ginnaawam ndeysaan nee bi pàppay jëkkër ji gaañoo ginnaawam nee na nag jëkkër ji daldi di koy woo ni ko sama papa de moo ñu daan jàppale wax dëgg yàlla ndax nee na papa jëkkër ji dafa amoon xaalis moo leen doon jàppale ci yu bëree bëree bëri nee na jëkkër ji ne ko sama papa moo ñu doon jàppale ci lu bëri te sama pàppa gaañu na xam naa ne moom boo ci jàppul dina gën a metti nee na mu ne jëkkër ji léegi lan nga bëgg nee na jëkkër ji ne ko comme sama papa moo ñu doon jàppale te génn na àddina dama bëgg a nee na mu ne jëkkër ji yow booy voyager fooy jaar ndax am nga ku la yóbbu nee jëkkër ji ne ko waa am naa koo xam ne sama xarit la mi ngi marok nee na su ma ko joxee deux million bu ko defee deux millions yi duma ko ko jox sax mais dama koy jël di ko def ci banque di ko dugal di génne di relever di dugal di génne nee na bu yàggee dinaa mën a mu dimbali ma ci kor ci relever de banque yooyu dinaa ci mën a am nu ma tukkee nee na jëkkër ji ne ko deux millions laa soxla ma ne ko eskay soxna si nee na ma yëkkatiwaat deux millions daa di ko koy jox cëtëtëtëtët non waa ji nag yow nag sa jabar ji baax na de ndeysaan jigéen bu la nangu di dox som yu toll nii xewal boppam def lépp yàlla baax na nee na ma jox ko deux million yi ba pare nee na laajaatuma ko lu ci jëm jox naa ko ko rek nee na mi ngi dugal banque ka génne comme ni ma ko waxee nee na ma soxna faatu loolu yemu ci de sama néeg armoire beeg lal beek coiffeuse bi ak tele bi ñuy seetaan man maa ko jënd ne ko cëy yàlla nee maa ko jënd lépp loo gis ci néeg bi rek man maa ko jënd nee na lenn rek moom laa xam ne amoon naa ko comme satisfaction mooy waa ji musumaa saaga musumaa xas mësumaa dóor mësumaa depaase nee na seytaane bu ñëwaan suñu diggante sax man maa fay nekk di ratatati waaye moom su coow li bëree dafay génn néeg bi dem jàpp bu jàppee ñëw julli temps bi muy julli avant muy pare day fekk man ma nelaw ndeysaan ma ne ko ah loolu sax tane la ndax am na ñoo xam ne dañ ciy boole di jël sa alal ba pare di la xas di la saaga mais nee na waa ji moom wax dëgg fa yàlla moom loolu du ay mbiram wax bu jotee sax man maay wax ba doyal moom bu bëggee daw coow li day dem jàpp julli temps bi muy pare julli day fekk man ma sonn ci wax ji ba nelaw ndeysaan ma ne ko est-ce ma ne mu ne neuf mois après mu ñibbisi ginnaaw bi mu yónnee jëkkër ji deux million ndeysaan ñu bi ma ñibbisee ma toogaat fa lu yàgg a yàgg encore nee na sama njëkke yi di ma sonalaat nee na am na sama njëkke boo xam ne moom moo gën a mag ci njëkke yi nee kooku timis lay wàcc sag timis day wàcc nee bu wàccee timis su egsee rekk dafa may kókkali ndax nee na bi ma fa toogaatee lu yàgg a yàgg après ma programmé waat ne damay dellu ca pays Afrique ba bi ma joxee sama jëkkër ji 2 million yi ba pare nee na jour bi ma programmé jàpp jour pour dellu ci pays Afrique ba rek nee na ma jékki-jékki rek daal di ndeysaan ma ne ko cëy yàlla bi ma wàccoo ma xam ne kon ëmbaat naa nee na ma ne comme ëmbaat jarul may dellu pays Afrique bi comme ëmb bi senegal la ma fekk naa toog ba yàlla génne ma si si jàmm nee booba nag bi ëmb bi di feeñ li ma yoroon mu ngi toll woon ci un million cinq cent mille moom laa yoroon ci xaalis nee ma ne ko mënumaa delluwaat ndax ëmb feeñ ci diggante bi nee na ma daal di jël un million bi daal di koy dugal ci ron lal bi daal di koy nëbbu foofu nee na cinq cent mille bi ma jël ko yónnee ko pays Afrique bi ma nekkoon ne leen ñu yónnee ma marsandiis ma indi ko Sénégal ma jaay ko bien vrai que daawuma commerce mais bi ma nekkee ci pays Afrique boobu ay sénégalais dañ ma doon yónnee seeni xaalis ma leen di wutal bagage te gisoon naa ne bagage yi da dox torop nee na ma ne leen léegi 500000 bi nañ ma ko jëndal bagage ñu yónnee ma ko au Sénégal ma commerce ci ndax nee na bagage boobu commerce bi dafa dox commerce bi da nga ciy gagné 100 pour cent nee na même bu dee da nga ciy tibb di maye sax. da nga ciy gagné cent pour cent nee na moo taxoon bi mu ëmbee ba mënul dellu pays Afrique bi mu yónnee cinq cent mille pour bu ko defee ñu daal di koy yónnee marchandise mu jaay nee na ma soxna Faatu sama njëkkey continuer di ma di ma sonal di ma indil ay problème ëmb bi di gën a feeñ ñu may sonal mais nee na dafa am benn moment boo xam ne dama tëdd sama néeg nee na sama goro bi moo njëkk a sentir ne dama ëmb <laughs> ne ko cëy yàlla nee na sama goro bi ñëw fekk ma ca néeg ba ni ma ndax dangaa ëmb nee na ma ne ko waa dama ëmb nee sama goro bi ne ma man de dama lay ñaan rekk ngir jëmmi rasuulilaay bu la yàlla mayee sa bopp nga njaag nangul ma <laughs> ma ne ko si <laughs> kon loolu am na nee goro bi ni ko ndax man mësumaa dégg njaag nangul ci diw laa ko yaakaare woon diw mooy wujju peccoor gaam bi ci laa ko yaakaare woon mësuma teral mësumaa defal njaag nangul ma lay ñaan ngir yàlla nga defal ma njaag nangul mu ne moom amoon na lu ko leer ne goro bi bëggu ko mais ay teraangam la bëgg ne foofu nag mu ne goro bi eggaguñ ci bu ñu ci yàlla yóbbook jàmm incha allah dinaa ko def ndeysaan ma ne ko cëy yàlla nee na ma soxna faatu ëmb bi di gën a avancé sama njëkk bi ki ci gën a mag waxoon naa la moo may sonal nee na mujj gi suy wàcc timis hamburger lay indaale nena bu indaalee hamburger nee na ndax man dama doon faral di tëdd ci néeg bi rekk di lëlu nee na sama goro bi ne ma ku ëmb du wéet del ñëw di toog ci biir nit ñi nee na ci noonu may génn di toog ci saal bi ak sama ëmb nee na su ma ñëwee ci saal bi sax ci suuf laa naan mbàpp ndax sonn ci ëmb bi nee na sama njëkk bi nag xaw ma dafa xam ne chaque heure boobu ci saal bi laay toog mujj gi suy wàcc day indaale hamburger su ko indaalee comme maak moom duñu wax ci sama wet lay taxaw di dajji hamburger bi di ci may yaayam pardon bu ko defee yaay ji ndeysaan dafa may xool dagg ci hamburger bi may ma mais su ma mayee nag soxna Faatu sama ngor du ma may ma jël ndax comme maag borom hamburger bi duñu wax su ma mayee du ma jël ndeysaan nee na moo tax soxna Faatu bi ma amee doom sama doom ji dafa lakk daa indaale ñaari tâche ndeysaan ma ne ko ci yàlla xoolal ma lii rek nee ma ñaari tâche yu garaaw la sama doom ji indi ma ne ko yàlla baax na ndeysaan nee ëmb bi di gën a nag ba gaa xam ne léegi xëy na yàlla defal ma jàmm nee na sama njëkkee yi commencé di wàcc tension bi ndànk-ndànk di mel ni ñu may neexal nee na soxna faatu ñu fexe fexe ba jubook man fexe fexe ba mel ni si nete n'était commencé di xaritoo waat ak man di ma jege nee na soxna faatu dañoo dem ba jubook man ba mel ni premier mois yi ma fi doog a sëy si jàmm jiñ ma mayoon ma ne ko cëy yàlla lépp rekk ndax njaag nangul nee na sama goro tamit di ma di ma fàttali toujours njaag nangul bi ndax nee na sama wujju peccorga bi la yaakaare woon njaag nangul te kooku mësu koo defal njaag nangul ma ne ko cëy yàlla ak njaag nangul <laughs> moo tax ku fi am doom bu jigéen <laughs> Sénégal nag est-ce que jotul ah kon jigéen ñi nañ wàññeeku de ku fi am doom bu jigéen am nga problème kon Sénégal système bi egg na foofu laa ilaha illallah cey ñu nag njaag nangul nee na soxna Faatu ma dema dem ba yàlla may ma ma matu dem hôpital pour ami doom ndeysaan nee na bi ma matoo sama goro moo ma yóbbu mais nee na ma soxna Faatu sama goro bi nitu intérêt la ma ne ko ah mère bii kay kuy demande njaag nangul moom xamatuma ci dara njaag nangul kay balaa neex nga toog ba ñu defal la ko nee na maire bi ne ma ñukk ca hôpital ba ne yàq bu naqari dem nee na daa dem tuur tuuru meeram yooyu mu bokk dem nee na maire bi dafa dem tuuti rek ma am doom nee na maire bi dañoo mujj di ko wër ci hôpital bi di ko wër ndekete maire bi nee na ma fa ñukk dem tuur nee na nee na mujj gi sama numéro jëkkër laa joxe ñu woowal ma ko ne ko de diw am na doom nee na maire bi ba muy ñëw ba muy ñëwaat ci hôpital ba fekk na mbokkam yëpp ñëw ci hôpital ba maire bi ñu laaj ko mu ne damaa demoon tuur nee na li ma naqari mooy maire bi man bi ma yóbbee hôpital ak bi ma amee doom matul sax ay 30 minutes mais maire bi dafa yàqamti dafa maa indi ci hôpital ba rek wan ma ginnaaw mu ne ma maire bi ni ma def dafa ñaaw ndax doomam bu jigéen bi ba muy matu am na hôpital 3 jours te 3 jours yooyu maire bi daawul ñëw ca kër ga sax pour sangu si man ma nekk goroom mu ñëw indi ma fa ne ma fa ñukku dem far yàlla nattu ko mu wone ginnaaw rek ma am doom mu ne ma soxna Faatu xam nga loolu vraie négligence la ma ne ko ah bien sûr mais nag yàlla baax na ndeysaan nee na ma am doom ñu war a ngénte semaine bi ci topp nee na nag ñu yaakaar ngan di xew nee na bi ñu yaakaaree ngan di xew nee na ma ne leen man du ma ngénte ndax nag affaire bi dafa tombeek corona nee na boobu la corona bi di doog a commencé Sénégal ñëpp ñu confiné leen nee na mu ne leen ah man daal duma ngénte ndax nag corona bi mu tombeel moom gëw ma ne dinaa ngénte ndeysaan nee na goro bi ñëwaat ba néegam di ko supplier naan ko dimbali ma rekk même boo ngéntewul njaagal ma ma ne ko xay senegal <laughs> neex na de Hmm. borom doomi jigéen ñi jafandu leen de parce que nag gisa ndaw si li mu wax dëgg la de njaag nangul tas na sëy yu bëree bëree bëri ndeysaan lan mooy ay tisi yow nit a nit a noppam biñ la jox mu lay guddil di la bëccëgal wàcc yaayam bi ko jur ah yow loolu rek gënt doyul ay njaag nangul leneen lu ñëw nag nga xam ne bénéfice la mais pour quoi muy doon force dañoo dem a dem o Sénégal ba soo amee goro yaayam amul lum la njaagalee ñeneen ñi di la saboote naan diw de ñii dañ koo toroxal njaagaluñ ko sax ay waaye Sénégal kañ la am esprit de dépassement lan mooy ay njaag nangul xanaa nit ak jëmmam biñ la jox ëppul ay tissi ak ay yére kay xaalis biñ lay jox boo xam ne boo ko ko benn jour mu jeex waaw ah, Sénégal metti na de waaye borom doom yu jigéen yi jafandu leen de <laughs> li ñuy may seen doom du ma dara ba pare ngeen dépassé waat ci ay million te sax amaana bu xew bi dépassé ñu leen évacuer waat seen doom yi ne leen téye leen mais nag yàlla baax na nee na goro bi naan ko dimbali ma rekk nga jàppal nga defal ma njaag nangul ndax nag musuma dégg njaag nangul kon yow laa bëgg nga defal ma njaag nangul <laughs> ndeysaan nee na mu ne d'accord nee na mu toog a toog ba corona bi wàññeeku mu ne dina ngénte mais ngénte bu yam lay def nee na fekk na ci diggante bi sax dellu na ca pays Afrique ba mu ñibbisi pour ngénte bi nee na bi mu ñibbisee mu ne leen damay xew comme corona bi wàññeeku na nee na mu laaj jëkkër ji ni ko yow xew bi loo ciy def sama gars yi comme dab waa ji ne ko yoruma dara ey waaye ndaw sama nee naa la ñam na ko neex na de waa ji kay du mës yor waa ji yow li nga am neex na de ah ah yow li nga am góori Sénégal buñ ko amoon jël yow takk bi sa jabara la jox premier kado nga jox ko moo xewal boppam moo jëndal boppam ay meuble moo def lépp mu am doom moo fayal boppam hôpital ba ndaw si nee na hôpital ba sax maa fay maa fay frais hôpital ba ngénte jot nga ne maa ngi nii ma ne ko ca eskay loolu neex na de nee na bi mu nee amul dara soxna Faatu ma lebalaat ko trois cent mille ndax sax moo ne ma léegi danga may lebal trois cent mille ma téye ko ndax ngénte li après dinaa la fayaat nee na ma soxna Faatu ma ñàkkaat jom ma ne ko billaay ñàkkoo jom danga xuus ba ci baat te mënatoo arrière ndeysaan nee ma ñàkkaat jom lebalaat ko trois cent mille ma ne ko doom encaissé nga de quatre cent mille deux millions trois cent mille nee na ci noonu ñu jàpp bisu xew bi nee na comme sama goro mi ma topp naan ma njaag nangul bu dul jeex nee na ma daldi wax sama yaay ni ko dama bëgg a terle nee na ma yëkkati deux cent cinquante mille daldi koy jàppale sama yaay nee na ma dem ci sama goro ne ko léegi damay terle nee sama goro bi bindal ma liste list ndeysaan nee na ma dem yóbbul sama yaay liste bi ak deux cent cinquante ndeysaan ma ne ko ci cey a Sénégal metti na de <laughs> nee na xew bi ñëw ma daat leeni teral ma teral leen ndeysaan cey yàlla ma ne ko cey nee bi xew bi paasee rekk ba xew bi paase teral naa leen xewal naa leen sama goro la mu bëggoon defal naa ko mooy njaaga nangul <laughs> njaboot ku ko ñee mës nga kaa yërëm cey loolu ma ne ko ci cey <laughs> waaye borom doomi jigéen yërëm naa leen de nee na après quelques mois ma toog ci couloir bi di nàmpal sama doom nee na ma dégg sama jëkkër di wuyu téléphone nee na nag ki mu doon waxal téléphone benn frère la bu nekk Brésil nee na frère bi nekk Brésil bi ñoom ñaar ñuy waxtaan nee na maa ngi leen di dégg ndax nag appartement bi ñu dëkk ndax nee na dañoo luwe woon kër bu xa kër bu yem neena na appartement bi ñu dëkk sooy wax téléphone soo moytuwul ñëpp dañ lay dégg nee bi ci ji di wax ak euh, frère bi nekk Brésil nee na mu leen di dégg nee na nag dégluwu leen mais wax ji moo ko doon fekk si fi mu nekk nee mu dégg frère bi ni ko yow ana préparation voyage bi nga doon def pour voyager déggaatuma nga wax ci dara nee na jëkkër ji di tontu frère bi ni ko voyage bi de maa ngi ko doon préparer soxna si sax joxoon na ma 2 millions mais 2 millions bi dafa mujjee seey nee na maa ngi koy dégg de. nee na waa ji di expliquer frère bi nekk Brésil ne ko man soxna si dama ne ko woon dama koy dugal banque di relever di dugal di relever mais sama xarit bi daf ne ma woon naa ko envoyé un million cinq cent bi mu lijjantil ma ma jaar ci yoon bu illégal pour dugg Europe nee na ma soxna Faatu bu doon gaali sax ma ne waaw mais nee na ma fi mu doon jaar du sax gaal du sax gaal beneen moyen la ko xaritam bi wax pour ñu programmer si mu lijjantil ko mu dugg Europe ma ni ko cëy yàlla kon am na beneen secret yàlla baax na nee na bi ma leen déggee nag nee na ma ne pat def comme si rien n'était nee na deux jours après deux jours nee na fekk sama marchandise boobu ma la waxoon yónnee woon naa ko ci pays Afrique bi ma nekkoon marchandise bi jot naa ci ba jaay ko ba gañe ci cinq cent mille de plus mu ne ma waxoon naa la marchandise boobu cent pour cent la amul nooy def ba doo ci am cent pour cent ndeysaan nee na nag bi ma ko déggee nag mu wax loolu téléphone ma toog deux jours après nee na ma fekk ko ci néeg bi nee na ma ne ko diw yow yaa ngi doon def sa relevé de banque yooyu ba tey nee na sëñ bi ne ko waaw nee mu ne sëñ bi léegi dama bëgg sama marchandise bi jural na ma bénéfice su cinq cent mille ne na comme jural na ma bénéfice cinq cent mille ma bëggoon ñu continuer relevé bi dama bëgg ñu jël xaalis bi di ko dugalaat foofu ñu dolli ci cinq cent mille franc bi ne jëkkër ji ne ko waa bu subaa ñu ànd dem banque déposer fa xaalis bi nee na ma soxna Faatu la lendemain rekk sama jëkkër ji moo ma njëkk a yeewu bi ma njëkkee yeewu dafa porté malade <laughs> ma ne ko ci cey nee na mu porté malaat nee na ma xam ne dafa porte malaat ndax moom xamul ne man dégg naa waxtaanam ak frère bi xam naa ne xaalis bi musul dugg bànk maanaam da fa naax saay ci yàlla nee na nag mu toog a toog ba xam ne porté malade am yi munul wéy nee na mu xëy benn suba mu daa di may woo mu ne ma dama bëggoon ñu waxtaan ma ni ko d'accord amul problème nee na mu ne ma waaye dama bëggoon ñu dem Malibu Malibu la ñuy waxtaanee nee na ma ne ko amul benn problème nee na ma jël sama doom ji daal di koy dénk sama wujju peccoor ga bi ndax xale bi sax lim doon nàmp biberon moo ëpp ak titin bi ma ko daan sexal nee na ma ànd ak sama jëkkër ñu dem Malibu nee na bi ñu demee toog di waxtaan ne na sama jëkkër daal di may avoué waat ne xaalis bi xaritam bi nekk Maroc la ko jox te xaritam bi nekk Maroc moyen bi mu ko doon wax wutloo pour mu duggee ko Europe affaire bi dafa mujj échec kon xaalis bi tamit mu ngi noonu di naax saay nee na ma soxna Faatu set fois ci nag ba ma waxee loolu wax dëgg yàlla nag mënatuma ndax waa ji daf maa yepp waa ji mënuma ko jox sama 500000 pour première cadeau waa ji lebaat 400000 yi ma xewal sama bopp waa ji defu ci dërëm ma ngénte sama bopp lebal waa ji 300000 waa ji fayuma 300000 yi waa ji soxla 2 millions ma nekk ca pays Afrique ba yónnee ko 2 millions waa ji naan ma fii la xari jaar fii la nag yi bëttee wax dëgg yàlla nag mënatuma nee na ci laa ko waxee léegi dama bëgg nga lijjantil ma sama xaalis yi ma la lebaloon yépp nga fay ma ko nag ndax wax dëgg yàlla dama laa lebaloon nee na waa ji ne ko amul problème dinaa la fay nee na mu tombe woon ak approche su tabaski ndeysaan nee na bi paase nee na ma sonal ko nag cette fois ci ne ko yii diw fay ma fay ma sama xaalis dama koo soxla nee na waa ji di ma dawloo ma ne ko léegi comme dang may dawloo soo bëggee ma toog sëyal la sëy bi fay ma sama xaalis soo ma fayul ma dellu suñu kër ci yàlla nee na ma soxna Faatu ma jël samay bagaas desewuma fa dara nag lu dul meuble te maa ko jënd mais bàyyi naa ko fa jël naa sama yëre yépp dem ñibbi suñu kër mais nee na bi may ñibbi suñu kër dama nax sama goro ak samay njëkke ne leen damay dem suñu kër nàmpali sama doom comme ni ko gars yi di waxee damay dijjali nee na mu dem di jëli jëkkër ji moom xam na ne mer moo ko fi jële mais waa kër gi comprendre duñu nee na deux mois après goro bi di réclamer na ñibbisi mais nee na jëkkër ji la ko wax jëkkër ji waxul dara nee na après goro bi woo ko téléphone di ko laaj lu tax ñibbiseegoo deux mois am nga ko fa nee na mu ne goro bi dinaa ñëw fan yi nee na ci noonu nag mu comprendre nekk que ne jëkkër ji wax waxul goro bi dara ne na mu continuer toog toogaayam ne na trois mois après mère bi nag xel mi commencé ñaaw ne na mère bi woo doom ji laaj ko ne ko yow sa soxna si moom yàgg na ci di jëleem mbiri di ne nag ci la waa ji takkee fitam daa di avouer bi li ma fa jële ñene bi mu defee loolu xam ne avouer na mère bi li ma fi jële ne na mère bi daal ciy génn daal di toog toogaayam bàyyi wax ji ne na sama jëkkër ji nag ci la woowee sama papa bi mu woowee sama papa mu expliqué ko affaire yi ni mu demee yëpp yëpp yëpp yëpp ndeysaan nee na sama pàppa ni ko yow waroo ma woon a expliqué li nga sékk ak sa jabar ndax sa jabar lépp lum la jox yéen ñaar la ndax man li may jox yaayam xejaluma ci kenn yow tamit waroo ma woon a wax fi mu jaar ak yow yépp ci wàllu xaalis nee na ji ni ko comme demee na noonu nag dama lay ñaan wax ji na yem sama digganteeg yow ak sa jabar ndax nag su ko yaayam déggee dina mer de bu yaayam xamee ne somme bi yépp moo la ko doon jox ba ci premier cadeau bi sax moo la ko jox nga indil ko ko yaayam dina mer ndeysaan ma ne ko est-ce que paa bi moo doylu te baax ndeysaan cëy yàlla ñe ne paa bi daal di wax loolu goro bi ni ko wax ji na yem sama digganteeg yow ndax nag yaayam bu xamee ne première cadeau bi sax moom moo la ko jox di ngeen am dina dina mere doomam de te boobaa yaay nekk responsable bi nee na sama papa daal di yemale wax ji ci sama digganteeg moom ak sama jëkkër ndeysaan nee na ma soxna faatu cinq mois après maa ngi toog ci kër gi nee na sama papa suturaal na ko bëggul sama yaay xam ne man maa jox sama bopp premier cadeau bëggul sama yaay xam ni bor yi ma lebal sama jëkkër xaalis bi ni mu toll ndax sama yaay bu ko yëgee day mer ndax jigéen la ñu ne xanaa goro bu la defal lii kay desee la dara ma ne ko billaay wallaay paa bii doylu na ndeysaan nee na cinq mois après rek sama jëkkër daa woowaat sama papa téléphone daa ni ko neel diw fase naa ko nee na soxna Faatu bi mu nee sam papa neel diw fase naa ko nee na sam papa dana ko diw tey nga kaa bañ a fase am ngeen benn doom bu jigéen waxtaan leen rek ngeen juboo bu ko defee ngeen continuer seen sëy ma ne waaye paa bii moom baax na de ndeysaan nee na mu ne ko fase naa ko daal fase naa ko nee na sama papa ni ko ah comme nee nga fase nga ko daal est-ce que woo nga ko ba wax ko ko nee na waa ji ne ko soo ma joxe soo ma ko joxee téléphone ma wax ko ko nee na sama papa it daal di may woo nee na ba ma woowee paas ma waa ji waa ji ma décroché rek nee na waa ji ne ma fase naa la ba muy juróom-ñaari yoon <laughs> ma ne ko ay waay ndaw sama lekk yow kay yow yow kay fase yow ku jigéen kee la waroon a fase di <laughs> ndax ku jigéen ki moo la takk moo la waroon a fase di ay man nit ku ñuul moo mën a soppeeku nee na bi ma fasee nee na ma ne ko ok nee na fekk sama doom mi ngi amoon cinq mois nee na ma daal di koy feral nee lu tax ma feral ko nag ndax dama waroon a voyager waat mais nee na cette fois-ci du sax Afrique sama visa moo génn ma war a dem Europe comme dama waroon a dem Europe te mënuma woon a yóbbaale xale bi te boobu xale bi am na cinq mois waa ji bi may fase ak bi sama visa di génn presque benn la nee na ma daal di feral xale bi nee na bi ma feralee xale bi visa bi di génn nee na ma demoon di ñàkki xale bi ndax nee na comme sama kër jëkkër ji la xale bi juddoo ca koñ boobu kon ca hôpital boobu lay ñàkkoo nee bi ma demee di ñàkki xale bi ma jaar sama kër goro yi di leen nuyu nee na soxna Faatu ma ñëw fekk waa ji wékki lal bi wékki armoire bi wékki coiffeuse bi nee na booba nag comprendre pour man sax da ko jaay comme moom foo ko fekk rek danaan yorul yorul nee na ma daal reetaan ma ne waa ji de xam naa dafa foog ne benn moo ma fase bagage maa ko war a jël ñaar seen waa kër xamuñu ne meuble yi maa ko jënd ndax nee na lépp lu ma doon defal sama jëkkër ci sutura laa ko doon def faatu rien que pour suturaal sama jëkkër jàppale sama jëkkër ba seen waa kër sax mënuñu ni imaginer ne que man maa jëndal sama bopp ay meuble man maa xewal sama bopp man maa joxe sama premier cadeau bopp man maa def yëpp ndeysaan mu ne ko am nga sutura de waaye waa moo xamul li mu bàyyi ndeysaan nee bi ma gisee mu nëbbu bagaas yi nee na ma ne amul problème nee na ma yendu fa ba ngoon ma daldi ñibbi bi ma ñibbee di préparer sama voyage nee na voyage bi nag nekkaat naa fa ay quelques mois rek après ma doog a jël vol daldi dem Europe nee na fois-ci Europe laa dem nee bi ma demee Europe ma am fa benn liggéey bu yem nekk fa nekk fa ba amaat fa un an ndeysaan nee na un an après Europe nee na ma amaat beneen liggéey nee na sama salaire nag commencé di gën a yokku sama salaire di yokku nee na may déggante ak sama wujju peccoor ga bi nee na ma nag sama wujju peccoor ga bi amul téléphone ndax jëkkëram da koy tere téléphone mais sama première njëkke nga xam ne kooku la ñu waroon a tuddee sama doom intérêt tax ba tuddeewuñ ko sama doom kooku seen doom baay la ne kooku moo yor téléphone parfois mooy ñëw ci kër gi paas ma sama wujju peccoor ga bi ne na bi ma paasee sama wujju peccoor ga bi sama wujju peccoor ga bi xamal ma ni moom de delloo delloosiwaat na lal beeg armoire beeg coiffeuse beeg télé bi yépp rangé waat na ko ci néeg bi ne na ci laa comprendre moom dafa defe ne woon damay jël si bagage yi moo tax mu rawale bagage yi léegi bi mu xamee ne dem naa Europe nag mu xam ne kon bagage yi du ma ko jël si ci la jëlaate néeg bi meublé waat ko bagage yi ma jëndoon kon waa ji dafa nëbboon bagage yi ngir ban ma jël si ko <laughs> ne ko cey yàlla <laughs> waa ji neex na de cey nee na maag sama wujju peccoor ga bi nag mun nañoo toog trois mois duñu déggante ndax amul téléphone jëkkëram da koy tele téléphone mais saa yi sama njëkk bi demee ca kër ba ba paas ma ko maag moom kenn ku ci ne doo nëbb sa moroom dara bépp situation boo toll danga nga koy wax sa moroom vraiment maak sama wujju peccorga bi ay xarit lañu te sama wujju ga bi moo ma yaatal ndax ku baax la dégguma seen làkk waaye lépp luñ ma mës a wax moo ma ko wax ba pare di ma defal ndeysaan ma ne ko lu raar ci Sénégal ci yàlla ne na ci noonu nag soxna Faatu actuellement nii nii nii may waxee yow maa ngi Europe maa ngi liggéey aussi maa ngi sant yàlla ba tabax naa sama kër papa benn appartement lu tax ma tabax fa nag sama papa ñun kese la am amuñu ay doom baay tabax naa fa am naa aussi sama beneen terrain boo xam ne mi ngi foofu ci Sénégal xam naa ne bu jamono changé dinaa ko tabax mais nee na lu tax ma indi histoire bi émission nettali nee na sama doom aussi maa ngi ko bàyyi Sénégal ci sama yaay bi may dem presque sept mois la am kon sama doom xamuma parfois sama yaay forcé mu wax ak man mais des fois mu ne ma yaay des fois rek mu jaar ci sama tur ndax xamuma sama yaay la xam nee na li ma gën a naqari nag faatu ci waa ji mooy waa ji bàyyi naa fa sama doom waa du dem sax seeti xale bi même su fekkee ne man ak moom divorcé nañu man maa ngi Europe doom ji moo ko jur na dem di ko seeti mais nee du ko seeti ak téléphone lay dégganteeg moom mais xale bi moom xam na ne moom mooy papaam ndax xale bi am na 4 xale bi parfois temps en temps rek lay dem kër papaam mais nee na sax gëj na fa ndax nee na yaayam kom kii du ñëw seet si xale bi wóoratul sama doom di fa dem bul ko fa yóbbu bàyyi ko fa nee na papa ji musul sol dàllam ñëw seet si xale bi neena nag mu ngi Europe koñ bi mu dëkk mook turandoo doom ji ñoo bokk koñ maanaam koñ ba mu dëkk ci Europe moom ak ki ñu tuddee doomam ñoo ñoo ñoo fa nekkandoo te nee na kooku moomul woon tur bi mais nitu intérêt yi ñu doon moo tax ñu tuddee kooku tur bi te kooku du premier njëkk première njëkk bi mu ngi senegal ñu ne ko fa ñukk tuddee ndaw si nekk Europe doomam ji ndax intérêt nee na nag xam naa kooku mooy renseigner jëkkër ji ci situation yi ma nekk ndax dañuy mbëkkante biir Europe bi ma nekk nee na soxna Faatu laaj bi may laaj mooy sama jëkkër ji dafa jékki-jékkiwaat fexe ba am sama numéro téléphone di ma woo di ma jéggalu naan ma baal ma àq dama juum dama bëgg ñu sëyaat man maa juum ndeysaan nee na nag mu leen di laaj yéen mbokk interne yi ndax mu baal waa ji duggaat ci sëy bi walla mu bàyyi waa ji waa ji dem mu dem nee na nag benn côté moom xam na ne nobatul waa ji li ko waa ji def yëpp moom santiratul mbëggeel ci waa ji mais nee na benn côté xel mi danaan ko demal rek nga sëy ak moom ndax bu dul dara am ngeen benn doom te nee na moom mosul xam góor ku dul ci waa ji nii mu divorcé aussi nekk Europe ba tey nee na Europe ga mu ne ñam fa bokkal di liggéeyandool madam lañ koy woowee ndax nee na suñ leen suñ ko laajee ana sëñ bi mu ne leen sëñ bi mi ngi fi nee na ba ñooñu ñëpp madam lañ koy woowee nee na ñenn rek ñoo xam ne moom dafa divorcé ak waa ji muy seen waa kër yaayam ak papaam ak jege ñaaleem mais mbokk yi nga xam ne dañoo sori sax xamuñu ne dafa divorcé ak waa ji dañ naan ko toujours buñ ko déggee téléphone ana sëñ bi ndax yaa ngi koy dégg nee na nag vu ko boobu ba léegi mi ngi Europe di liggéey liggéeyam amu fi jëkkër amu fa far rien que parce que moom waa ji la xam génn naag waa ji dix ans sëy moom année yi mu sëy moom yëpp waa def ko nii mu ko def mais waaji ji mi ngi koy toppaat xam na ne nag nobatul waa ji de nee na moom bëggeel amatu fa mais nag day xalaat na est-ce que du dellu rek ci waa ji comme que àddinaam yëpp waa ji rek la mosa xam musul xam keneen mu delluwaat ak waa ji nee na nag seen xalaat lay laaj ndax bëggut a defaat erreur ndax waa ji nitu intérêt la lu tax mu toppaatee ko nii parce que xam na ne mi ngi Europe ndëgëm ba mu nekkee ci pays Afrique la doon jàppale waa ji waa ji xam naa da naan kii kon bu nekkee Europe sama affaire day gën a baax waaji nag mu ngi koy jéggalu naan ko dama juum dama def nii ak nii nee na nag moom xel buy werante moo ko sonal mu dem sëyaat ak moom ñu uuf seen benn doom bi ñu am mais mbëggeel amatu fa nee na moom amatu fa su koy def da koy def rek ngir sëy ak moom ñu uuf seen doom mbëggeel amatu fa mais mu def ko rek comme moom la ko yàlla booleel depuis ba mu juddoo ba tey musul xam beneen góor ku dul waajooju mu continuer ak moom léegi nag seen xalaat la ci xaar ay ca mbokku internet lii lañ leen indiloon tey ci wàllu nettali en tout cas euh, euh, mbëggeel moom fu mu amul yéeme na parce que nit ki ba nga koy defal loolu yëpp danga ko bëggoon xaw ma nag léegi beneen aussi mooy même su fekkee yàlla delloowaat na leen euh, soit vigilant soit vraiment vigilant ans dëgg yàlla soxna si moytul bu baax a baax nag ndax koo lebal teraanga bu ni mel mu xëy un bonjour rek naan la fase naa la ba muy juróom-ñaari yoon te fase bi yëpp yow lépp lu am ci seen diggante yow yaa ko dépensé Ah, vigilantal bu baax a baax mais nag yàlla baax na mun na am tamit réccu na xam na ne moo juum ay ca mi ngi noonu mbokk internet di ngeen jàppale ko ci xalaat rek ndax nee na dafa xamul ban décision la war a jël ngeen dimbali ko rek xoolal ko décision boo xam ne baax na mu def ko su fekkee dafa war a waa bàyyi waaji mu dem wala mu mayaat ko sans sëyaat ak moom donte xam na ne sax sentiratul waaji ndax waaji lim ko def dafa metti ay ca mi ngi noonu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu Ismaïla Fall fële ca Wakaam maa bu baax a baax di ziyaara mbokk internet yi nga xam ne saa su nekk dañuy am yéene di jàppale ñi nga xam ne dañuy am ay jafe-jafe ci émission nettale ak seeni commentaire waxuma sax jàppale financièrement mais jàppale nit ci xel rek loolu nit mënu ko fay ndax génn sa xalaat partagé ko ak ki am problème mu jël ko daal di koy jëfandikoo ba yàlla may ko ci solution loolu rek émission nettali amu ci seen fay ndax wax yàlla dañuy jotaat ay retour nga dégg ku ne man de wax dëgg yàlla bi ma liiree commentaire yi jële naa ci ay xalaat yu bëree bëree bëri ba tax na sax fii may wax ak yow euh, situation yi alhamdulilah yàlla def na ci ndox mu sedd kon nag internet yi amuñu seen fay yàlla mi am fay rek na leen fay wax dëgg yàlla ni ngeen di jàppalee nit ki ci xalaat ak xel waxuma laa dara sax waaye des fois seeni doole ak seeni xalaat ay ca mu ngi noonu ñu leen di jaajëfal bu baax a baax Ismaïla Fall maa ngi lay ziar depuis Wakaam di nuyu suñu DG Sey Latir Kanasatula Koreyen moo nekkoon na ci caméra bi Sey maa bu baax a baax futur ministre lool la ko Aboubacry Anne di ñaanal yàlla na ko yàlla def dëgg yàlla yar bi mi ngi fii tey bi mi ngi fii intelligence bi mi ngi fii macha allah ñu koy ziyaara bu baax a baax di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali d'ici la portez-vous bien et bon suite de programme sur Thiès Info ñu daal di koy terminer ak bye bye.